docteur Daouda Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Ndeye Comba. voilà docteur Daouda Diop nga nekk euh, chargé suivi évaluation foofule euh, ca COSYDEP ma lay laaj déjà naka ngeen di préparer euh, rentrée scolaire bi deux mille vingt trois deux mille vingt quatre. waaw maa ngi lay gërëm donc comme ni ñu ko doon defee rek at mu nekk comme COSYDEP ñu ngi yëngu ci wàllu njàng. Euh, ba loolu taxoon na xëy na peut-être xalaat nan la ñuy waajale ubbite ubbite école bu mucc ayib moo taxoon ñu doon teg liñ doon wooye ubbite jàng tey nga xamante ne ab pexe la woon yuñ laloon nga xam danañ dajale ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci wàllu l'école bi muy gox goxaan yi ñu jiite gox goxaan muy parents d'élèves yi muy élèves yi muy enseignants ñëpp nañ lañ leen di dajale ba mën a ubbi ubbi tey rek jàng tey nga xamante ne danañ fexe bo école yi am ndox di fexe ba euh, enseignants yi ñëw ci jot élèves yi ñëw nga xamante ni daanaka daal école dana mën a nekk nekkin boo xamante ni ku ci nekk boo ubbee dana mën a jàng tey loolu peut-être mu ngi ci mu ngi ciy liggéey euh, ba semaine bii ñu ñëw danañ daanaka def euh, campagne boobu nga xamante ni danañ dem ci fukki euh, région yeeg ñeent yi nekk ci Sénégal nga xam suñu antenne yongo fa danañ jëmmal campagne ubbi tey jàng tey boobu noonu. mais ubbi tey jàng tey bi dañ koy wax rek mais application bi ça pose toujours problème de Daouda. waaw xam ne xëy na peut être yéen mën ngeen euh, mën ngeen jàpp loolu waaye su ma juumul euh, nit ñi ñu ngi def ay jéego nguur gee ngi def ay jéego collectivité locale mi ngi def ay jéego bu ñu fexee ba xëy na peut école yi nga xamante ne am na ndox ñu génnee ko bu ñu fexee ba am am na ñax ñu bay ko ñu fexe ba maître yeeg en élèves yi mën a ñëw ci jot ñu ñu ñu jëmal ko yaakaar naa ne ñu ngi jox ci jéego yi ubbi tey jàng tey donc loolu defe naa ne ñu ngi ciy def ay ñu ngi ciy def ay jéego naam nag Euh, am na xëy rek sotti lépp mënut a sotteendoo benn benn waaye defe naa ay jéego ñu ngi ciy am ba tey na pare nañ naam nañ doon yéex a wala nañ doon yéex a tàmbalee njàng mi defe naa loolu moom wàññeeku na bu baax a baax a baax ci ci biir réew Hmm. Euh, kon euh, fi ñu toll nii naka gisee aussi benn problème boo xam ne ñu ngi koy signaler moom mooy déficitu enseignants yi maanaam enseignants yi euh, matuñ ci système éducatif bi ñu bari dañu bàyyi te remplacer wuñ leen est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci situation boobu. waaw xam nga amoon na benn gëstu bu ñu defoon ñu defoon ne nguuru Sénégal wala système éducatif bi soxla na am na lu mu soxla ba léegi ci ay jàngalekat pour que loolu ñu mun ko yokk parce que li tax ñu gëm loolu mooy dañ gëm ne. jàngale euh, jàngalekat mënul mënoo wax jàng jàng te waxoo jàngalekat naam élèves am nañ ci solo nguur ji am nañ ci solo mais jàngalekat comme ñoo dugg ci classe bi joxe xam-xam donc ñooñu euh, ñooy daanaka cëslaay bi nga xam wala en tout cas mooy jën bi nga xamante ne daanaka ci la ñuy mën a sukkandiku pour jàngale mi donc bu fu mu rek dina am soox dina am lu lu sooxee ci njàng mi naam xëy na peut-être foo xamante ne xëy na peut-être ay classe normale ñoo ko waroon am danañ fa def ay classe à double flux wala ñu def ay classe multigrade wala foo xamante na peut être waroon nañ fa ubbi classe CI wala école bu lëmm mën na ko manqué donc loolu yëpp jàpp nañ dafay waroo ak li nga xamante ne Sénégal moo ko moo ko xaatimoon ne indil leen ma seen doom yi am diggante juróom-benn at ba fukki at juróom-benn ma jàngal leen donc su fekkee enseignant yi manqué na rek loolu dina am njeexital ci xaatim boobu noonu nga xam ne nguuru Sénégal xaatimoon na ko waaye aussi tamit dafay jël ci dafay dafay tax ba xëy na peut-être doo am mucc ay ni nga ko bëggee woon la nga waroon yi ci ay waxtu dana sooxe la nga waroon jël ci ay xale xëy na peut être doo ko mën parce que dana dem ba classe xëy na peut être ñoo waroon dugg sax duñ dugg li ñuy wooyee question accès am ñoo xam xëy na dana yokk li mu xale yi nga xam xëy na peut waroon nañ jàngi école jànguñu école Euh, donc loolu yëpp yaakaar nañ ne ay njeexital la yoo xamante ni na peut être sooxe bi nga xam sooxe peut être enseignant yu am na ko da ci am lu mu ci sooxe yaakaar naa ne loolu euh, am na njeexital ci ci njàng mi. Euh, Daouda aussi ñu gis ne chaque année année scolaire bi day bëri ay perturbations parce que perturbations yi mi ngi jógee ci accords yi nga xam ne état bi da koy signé du ko respecté jàngalekat yi di ko ñaawlu pour yéen atum ren lan lañ war def perturbation yooyu war a bañ a dellu siwaat encore. waaw euh, li rek xam nga biñ génnee ci accord février bi ñu deux mille vingt deux biñ génn wax dëgg yàlla nguur gi ak fii fexe woon nañ ba ñëpp toog ba euh, tënk loo xamante ni yaakaar nañ ne buñ ci doxee at mi dana njàng mi en tout cas dootul bëri ay yëngu-yëngu. donc loolu li ñuy li ko li koy mën a euh, jëmmal wala li koy mën a doxal mooy ñu fexe ba ñi nga xamante ni kuréel yi nga xam moom lañ tegoon pour mu saytu lool pour mu topp euh, um, li nga xamante ni xaati moon nañ ko diggante jàngale yeeg syndicat ak yeneen acteurs yëpp ñu mun ko di topp ñu mun ci di waxtaan parce que ñu li ñu gëm mooy il faut que kuréel yooyu noonu di dox newuñu ñuy xaar rek ba grève am wala ba kii am ñu ñu door leen a mën a dajal déedéet kuréel yi war nañ di mën a gisee di waxtaan di di di di sóor lu ñëwagul di waxtaan ci lu ñëwagul di xool nan la ñuy mën a jooyante waatee li nga xam jot nañ ko dem ñun yaakaar nañ ne kuréel googu daal buy dox nit ñi di gisante di waxtaan am nañ yaakaar ne xëy na peut être njàng mi dana danañ am atum atum atum atum mucc ayib xale yi danañ jàng ci jàmm ci dal ba nga xamante ne at mi dana dana jeex te kenn de yëngu-yëngu daal. waa nguur gi aussi jëloon na ay euh, mesures pour ñu wàññi scolarité bi frais d'inscription yi euh, yéen lu ngeen xalaat déjà si wàññite boobu aussi application bi pour mu am euh, lan ngeen si xalaat. waaw loolu moom lu ko def yàgg xeex la parce que dañoo yàgg gëm ne l'école bi il faut que nguur bi yoreel ko boppam te pour nguur bi yoreel ko boppam mooy école publique boo xamante ni ñépp ci bokk. donc doon nañ gis ne aussi tamit frais de scolarité parfois doon na doon gàllankoor xëy na ci ab góorgóorlu boo xam xëy na peut être yor na ñetti doom ñeenti doom euh, ñett ñetti bant ñeenti bant bu frais euh, de scolarité diisee dana tax xay na peut être ñetti xale waroon jàng peut être ñaar fay jàng wala benn fay jàng nga war ko boole dund bu cher bi nga xam jamono ji métt na xeetu métt koo xamante ni dafay am njeexital tam nga xale yi war a lekk xale yi war a naan xale yi nga war a fay location xale yi war a faju nga war koo boole ak ay frais yu jëm ci wàllu mi yaakaar nañ ne loolu doon na tax xëy na peut être ñu ci bëri bu waroon continuer ci njàng mi dootuñu dootuñu xëy na peut être ay njaboot yu bëri seen i xale jàngeetuñu wala génn nañ école ndaxte peut scolarité yooyu noonu moo ko moo ko waral wala am na lu mu ci am na lu ci am na lu mu ci doon donc bu demee ba nguur gi teg loolu jàpp nañ ne xëy na peut être lu ci lu ci lu ci baax la te tey fexe ba euh, boole ñëpp fexe ba ñëpp mun a yegg ci école bi nga xam mooy école bi te ñëpp bokk yaakaar nañ ne frais scolarité yi bu ko wàññee am na mun na am am na solo mais ñu fexe ba ñu ñu ñu ñu jëmal ko te léegi nag pour jëmal ko mooy ñaari ñaari taxawaay la. Hmm. mooy fexe ba ñi nga xamante ne xëy na peut-être ñoom lañ dénk njàngale mi ci gox goxaane mooy IEF yeeg autorité académique décentralisée ñu fexe ba ñu mën a di topp loolu noonu loolu nga xam nguur gi jël na ñu fexe ba nuñ koy jëmmalee ñu doxal ko beneen bi ci topp aussi tamit mooy léeg école yee ñi jiitu école yi xëy na peut-être di di def lu ñuy wooye ay frais opportunistes maanaam di cotiser la xale yi yooyu neen ab cent franc wala parce que dañoo war a defal mbir donc nañ fexe ba gox goxaan yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum njàng moom euh, koppar yooyu noonu nga xam ne yor nañ ko te war di ko jox euh, bërëbu jàngalekaay yi ñu ñu teel koy jox ñooñu nga xamante ba dellootu ko dinañ mën a ñoom ci seen wàllu bopp waajal njàng bi ba nga xamante ni duñu duñu wëlbati ko waat di laajaat xale yi ay yeneen euh, frais xamante ni dafay ñëw gàlluwaat ci seen ndoddu ci seen ndoddu waajur te loolu nga nga xam mën naa am njeexital ci ci ci njàng mu mucc ay mm-hmm. euh, tey jii yan précaution la ñu a jël parce que euh, pour éviter benn tension ci milieu scolaire bi parce que de njàng mi ren dafay tombe élection présidentielle Euh, pour yow yan précaution la état wu Sénégal war jël pour moytu fitna bi ci biir école yi. waa précaution moom mu war a jël mooy ñun gëm nañ ne war nañoo mun a def politique te du ñu te duñu laal école bi ñii politique war nañu mun a politique war nañ mun def seen campagne war nañ ne ñu ñu fexe ba génnee école bi ci seen ci seen bi. donte nag euh, nga xamante ni ku nekk war ngaa mën a far fi nga far def li ngay def te doo ci boole école bi parce que pour ñun école rôle am du fu ñuy fu ñuy politiquer fu ñuy tàggatee nit na koy joxee xam-xam la fu ñuy koo xamante ni moo war a defal moo war a defal askan wi leneen li ci topp tamit mooy li ñu gëm mooy euh, ci biir école aussi tamit la defaree euh, xalaat yi saafara yi nga xamante ni la war a saafara doxinu askan wi du jëm ci wàllu njàng lu jëm ci wàllu wér gu yaram lu jëm ci wàllu set wala jëm ci wàllu transport yaakaar nañu daal lépp loo xamante ni mu ngi yëngu jëm ci wàllu doomu aadama biir l'école bi lañu war a tabaxee saafara yi lañu war a tabaxee yoon wi nga xam fa lañu war a mën a jaar pour saafara lool kon école munul des ci mënul des ci politique bi leneen li ci topp mooy aussi tamit ñun li ñu gëm mooy képp candidat yëpp war nañ jox tayoo ak place am bi nga xamante ne njàng war na ko cee am donc fexe ba candidat yëpp aussi tam gëm ne njàng mooy mooy mooy doole réew njàng mooy sabax réew njàng mooy defar lépp ci réew kon programme yi politique yi naam ñoo wax ne mënuñoo tàqale école ak école ak politique déedéet waaye dañoo war a dañoo fexe ba candidat yi nga xam ne ñoom ñooy laaj baatu ñoom ñooy laaj réew mi jox njàng place bi nga xamante ne war na ko cee am parce que jàpp nañ ne ci njàng la ñuy defaree la ñuy defaree réew ci njàng la ñuy saafara euh, jafe-jafe yi nga xam ne am na ci réew. Euh, yéen seen côté waa COSYDEP euh, yan jéego ngeen teg pour rek année scolaire bi lépp daal di nekk année scolaire bu mucc ayib seen côté yéen surtout si COSYDEP. waaw ci ci li ñuy def mooy li ñu daan def saa su ne rek di artu di di di gëstu. di di di di sóor lu ñëwagul maanaam di wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñooy acteurs politique yi ñu fexe ba ci seen i jëf ñu politique te bañ ci te bañ ci boole école donc loolu mooy suñu taxawaay ci loolu la ñu def kon ne di di saytu wax ne ñëpp mën nañoo def li ñu def mais nañ ci nañ ci génne école bi école warul doon bërëb boo xamante ni ñu ngi ciy politique donc mën nañ def seen i jëf ñu politique naam daal bu fekkee peut ñu ngi ci boole l'école bi nañ ko ci nañ ko ci boole comme foo xamante ni fa la ñu war a mën a tabaxee saafara yi nga xamante ni xëy na peut être moom mooy jëmal réew mi kanam mais pas di di politique ci euh, école bi wala di indi euh, jëfi jëfi jëfi politique ci biir école bi merci beaucoup docteur euh, Daouda Diop. merci beaucoup soxna Ndeye may fàttali ni yow chargé de suivi nga évaluation ca coalition des organisations à synergie pour la défense de l' publique ñu gën ko xam ci COSYDEP merci beaucoup.